yéen ñi taamu seen émission boobu faqat maa ngi ànd ak wax dëgg yàlla suma xarit taalibi sëriñ Saliou Baye sama sëfër maa ngi ñëw ci yow di nuyu mbokk yëpp ñuy seetaan ci Leral TV Leral point net di ziar ñi nga xam ne ñoom la tëdd si lalu hôpital yi di leen nuyu di leen ñaanal sunu borom fëgg seen mën a dellu ci njaboot yi ñi ñaanal nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw rawatina waa camp camp pénal waa Rebeuss Sambour 11 Sambour waay nekk rek ñoo ngi lay ñaan sunu borom jëlee la fa ba nga mën a dellu ci njaboot yi waaye ngalla bul defati la fa nga xam ne moo la fay delloo ci waat foofu ndax yéen ay jàmbaar ngeen ay góor ngeen mbokk yi Albourakh Events di leen nuyu bu baax a baax rawatina Baye Ndiaye ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la ñaanal sunu borom defal la jàmm mbokk yi combat Pokola lis njaago di combat boo xamante ni coow li bari na di combat boo xamante ni polémique yi bari na di combat boo xamante ni bu bu mu taxawee ba tey yéen a ngi dégg cooli nu mu bari tey nag. moo tax ñu ànd ak yéen dugg ci biir ñaay bi dugg ci biir ñànkatang bi waaye dugg ci biir diin yi loxoti ki nga xam ne si moom mooy njaago or bi muy liis njaago dox ci diggante moom ak Pokola combat boo xam ne mu ngi war a am la cinq mais pël bu rafet maa ngi lay nuyu laay naxataa yàlla yàlla dolli jàmm dama yéeg diin yi wax dëgg yàlla fi mbokk yi gis ngeen dama yéeg diin ah, balki yonent bi mbëri luñ leen fay jaar na jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci leeral TV leeral point net yaakaar naa ne gis ngeen sortie bi ñu ànd ak Liss Ndiago génn këram wutali ji fi nga xam si ni fa lay daanee doole. fii fii mooy pàkk bi nga xam ne mooy pàkk Liss fi lay daanee doole fi lay utee xam nit ñi nit ñi xëyee seen i bureau moom fii mooy bureau fii ñu nekk nii xëy na am na ñoo xam ci ni miin nañ ko sax mais man fii moom xaw ma ko. te duma ko wax kenn fii moom ruq yi moom xaw ma ko te duma ko wax kenn ah, nañ ko la bàyyi ñu dékku suñu micro waxtaan ak moom ci préparation diggante moom ak Pokola parce que lamb ji coow li bari na lamb la boo xam ne coow li bari na lamb la boo xam ne ci nii gis nañu. bis yu mag yi fi am yëpp seen combat bi suul na ko ñuy gërëm Baye Ndiaye bu baax a baax di gërëm magam Aziz Alain Ndiaye ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di leen ñaan bis bi sunu borom def ci jàmm la cinq cay tàng ñàng yi Liss ñoo ngi lay nuyu. waaw ginnaaw bañ sant yàlla sant Yeesu Kirist ak Mariam sell mi waaw ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu àdduna waaw di nuyu képp kuy bëggee Liss Ndiago di nuyu diaspora bi yëpp di nuyu waa Diamaguène di nuyu mafia moo àndal yëpp ku si mel ni Tigre 2 waaw day sonn si ñun ak Nes bu leen heure ma neex laa leen di yee pour ñu dem entraînement. gis naa ko. war na alxuraan ñu ne yu baax ku si mel ñoom Amady Ndiaye yoole ay Dame Ngay Zo Boga ak suñu ma gawaar waaw boobu léegi moom tam mu ngi sonn si waa di sant waa Ikir Diamaguène si Kambaaw waa Lamsaar Bosco Sow écrit yëpp waaw bu bàyyi ma kenn maa ngi nuyu ñëpp di bëggee àdduna képp kuy bëggee Liss Ndiago maa ngi leen maa nuyu quoi. Liss Ndiago jël nga combat sa digganteeg Pokola nga génn waral tax nga génn. waaw du lépp maanaam man xale laa rek waaw man dañu maan defal ma def bàyyil ma bàyyi waaw sama staff ñoo waxtaan ne ma foog génn quoi waaw loolu moo waral ma génn waaw. di nga génn jee mm. li nga fawuti woon am nga ko. waaw am nañ ko sant yàlla quoi demoon nañ entraîné. quoi ñëwaat nañ waaw. Mhm. di ñaan yàlla moo mottali quoi. Mhm. Liss Ndiago bis yi nga daan bëri yëpp bisi yi nga daan bëri yëpp ba komba bi nga mujjee bëree sa diggante ak Ardo moom nga mujjee bëri na. Naaru Sokaas sa digganteek ak Naaru Sokaas ak sa diggante ak Ardo ak takkusaan yi ko doon am yëpp ak saan bii nga jëm nii sa diggante ki la ki toog di la seetaan bis boobu. waaw bis la rek kon yeneen bis yi quoi. tamit pour man moom ay xel lañ mais tam bis mënatul fees suñu bët. adversaire la kon yeneen adversaire yi voilà ni nga doon waajee ñeneen ñi noonu nga koy waajee ah incha allah di ñaan yàlla may ñu si ndam quoi. Liss Ndiago adversaire yi nga doon waaj bu njëkk ak adversaire bi nga xam ne dafa këx ku wax ñu ne Pokola laa këx ku wax ñu ne Pokola dafa dëgër bopp adversaire biñ la jox nii mu dugg jàmm gën daan sa wëllëre ah, mu jëlaat la mais Liss Ndiago waxal ak ñi nga xam ne ñoo lay seetaan. non bu dee ay waxu tëw ngay wax moom ñu ko gën a tëlaat dëkkal. te ñoom lay entraîner toujours muy Tigre 2 waaw ku xam-xam ne moo gën a tëg Pokola téeméer junni yoon waxu waxuma ak nees 2 quoi voilà waxu te moom tegee ko ne waaw mbër la rek kon mbërit maanaam combat yi ma mbër la làmb la làmb ñu boole waaw te la 5 dinaa leen wan ni maanaam waaw teguma ko sax bët. lu tax tegoo ko bët. billaay parce que maanaam fi ma war a dem si làmb ak fi ma war a maanaam li ma teg sa mbët si làmb ak li ma war a doon appareil si làmb waaw kii bu ma xawee jaaxal tuuti rek kon maanaam matuma loolu quoi. Pokola bu la xawee jaaxal tuuti kon matoo li nga doon yow. matuma ma lu a jëli après jarul ma fay dem quoi. favori bi boo déggee commentaire yëpp favori bi ñu ne combat bi Liss Ndiago mënu cee am dara. du doole du xam-xam du dara lu mu ci am parce que lépp Pokola moo ko ëppale ñu jël favori bépp jox ko Pokola. yow ba nga ko déggee commentaire yow nan nga def. moo maa ngi laaxut liggéey rek man moom soxla ma favori si làmb waaw maa ngi noonu la demee kii naatu sa kaw tamit noonu la demee mosuñu ma jox favori waaw toujours rek man maa ngi entraîné ak samay mbokk laaxatu di liggéey bu baax a baax waaw te bu ma ñëwee la cinq rek waaw dinañ xam maanaam ku la ne maa xam làmb rek nee ko baal ba dimanche. nga de. ku la ne maa xam làmb nee ko baal ba mhm. ngay bëreel de dafa mel ne dafa mel ne komba bi dafa mel ne Siteu Ama Baldé. waaw man combat bi loolu la may saf Siteu waaw man doomu Diamaguène laa moom doomu Pikine la waaw c'est normal quoi fii waaw mais tamit nekkul làmb joo xam daf ñuy jaaxal si benn côté. ndax làmb ji jaaxul la. waaw parce que damaa damaa xam ki ma doon rek. dafa mel ne ma gis da nga mel ne ku xaw a jël combat bi bàyyi ko Pokola yow nga resté lan la. non man maa ngi sama rukk di entraîner parce que man amatuma lu may wax ak ñoom quoi Sénégalais tamit tooguma toolatuma foo xam damay taxaw naa leen nii laa mel wala nii waaw parce que nee nañ mënuma waaw damay jëf ñu gis quoi. ah ñëpp nee nañ mënoo. waaw loolu nag du ay wax moo koy dindi. parce que ki daan gàkku dë bëreeg moom lu metti waaw loolu nag maanaam du ay wax moo koy dindi ko da ngay def ñu gis bu ñu gisalee seen bopp après ñoom ñooy loolu mooy rapport bi quoi le rapport bi quoi. bëreeg Pokola nga bëreeg adversaire bu mel ne Pokola lan la war a laaj. lu muy laaj mooy li may def nii rek waaw li def nii lu may teg nii lu métti lii waaw maa ngi sama rukk di ko def di ko entraîné bu baax walla keneen ku dul Pokola sax. waaw wax baaxul baaxul la seng la. ah dégg naa ñu ne combat bi combat tàng ñàng yi la de. waaw combat tàng ñàng yi la combat jàmm gën la laay wax waaw képp kuy bëggee Liss rek foo mënta nekk muy góor di jigéen foo mënta nekk mag ak ndaw combat bi sa dama for ci wéyu béy ñu ne combat bi yaa ko téel sa bopp soxla woo ci wax soxlawoo ci commentaire soxlawoo ci lan da nga jël komba bi boole ko noppi lan waaw parce que tamit gi nga mooy ma lay rek ñun ay góor lañ ko waa waaw du ñu jël ak maanaam suñu nawle combat. Mhm. waaw gënuñu juddu gënuñu dara nekku góor kon ñun. Mhm. avant lu nekk si ñun sax newul si moom. àdduna taxaw na ñëpp ne moo moo la moo la mën looy def yow. sa bopp waaw dem rey sa bopp rek boo ñëwoon nit ñi ñu gis ko waaw. moo tax ma ne la jarul wax ju bëri commentaire rek lépp. waaw lu waay wax rek. ñu naan Liss Ndiago du ci am dara Pokola ko mën. lu may wax man samay supporters laay waxal. lan nga leen di wax. combat bi nii la demee wala kii moo mën a kii xam lu may wax si loolu samay supporters laay waxal waaw nañ ñëw si xel wu dal ñoom ñëpp wóor na yàlla nu mu doon demee rek lay demee. Liss Ndiago man bis bi dafa ma ma jaaxal de ki nga war a bëreel man daf ma jaaxal koo xam dangay da moom ba àgg suuf du tax nga daan ko. waaw man mu bëree man ba tëdd si suuf du tax ma mooy loolu. billaay moom waa bu mu des si xelam maanaam benn affaire. Mm. waaw bëri nag samay mag bëri nag ay moromam bëri nag ñu ma ëpp fuuf waaw bëri nag façon ponkal bu ne waaye bii Liss Ndiago bi lay dajal. musiba lay seetaan musiba naaru laay bi ngay dajal voo bi ngay dajal. waaw bëri nga façon combat bu ne wala maa bëgg ngay tëddaale benn affaire di ko yeewaale liis njaawo ngay bëreel musiba bi ngay bëreel waaw lool na ko def sa bopp di ko tëddaal di ko yeewaale wax ji muy bëri bëri yaa mën mu wala mënoo man ak yow ñooy des si géew bi veau bi moom waaw bi mooy vaurien bi quoi lan mooy vaur voilà vaurien xam nga luy vaurien vaurien déedéet man xam nga vaurien de naa la ko tekkil musiba naaru laay moom xam nga ko waa xam naa ko voilà maa ngi man balaa laa xam nga luy balaa xam nga balaa de balaa mooy maanaam musiba musiba. wallaahi yow musiba nga. Mhm. ah Pokola Liss Ndiago nee na musiba la de. waaw. te la cinq incha allah yàggatul quoi. Tigre xale bi. Euh, xale bi liggéey bi ñuy bi ngeen di liggéey ak moom ak préparation bi ngeen di préparer moom ak seen digganteeg Pokola mais naka ngeen ko war a ja naka ngeen ko war a liggéeyee ba mën a jëm ci combat boobu xale bi mën see am ndam. parce que bëre ku mel ne laa laajul ay wax parce que xale bi gis ngeen fi mu jaar yëpp ci làmbam ci combat gis ngeen li mu bëre lépp ci combat mais kon préparer ku ne ne Pokola nan la war a demee ak xale bi. waaw moom moom wax dëgg yàlla déglu dégg na ndigal xam nga ñeme ne entraînement te bu ko yàlla fay xolam kase bu dee entraînement kese tax mu daan bu soobee yàlla da koy daan bu soobee yàlla. ndax liggéey na lu mu war a liggéey wax na ak ay mbokkam liggéey lu war a gis na fu ñuy jógee nu mu soree ñëw làqat suñu cinq heures lañ fiy ñëw di entraîné ba heure bi xam nga wax bu dee yàlla liggéey rek lay fay si kàttanu yàlla Pokola dinañ ko duma dinañ ko daan. c'est que bu soobee yàlla Pokola dinañ ko duma dinañ ko daan. coow li bari na commentaire yi yeneen mbër yi sax ñeneen ñeneen ñi di def sorti di wax ne Liss Ndiago combat Pokola du ci am dara. waaw loolu ñi koy wax dañ kaa xamul rek xamul nit moom boo ko xamul moom lu la neex ngay wax doomu aadama moom xamal li xam rek. te doomu aadama bi liggéey xam bul xam lu mu indi quoi te liis ñun ñun ñuy nekk ak moom xam nañ qualité yi nekk ci moom ku dul pokola liis mun na kaa daan pokola daaxuma ma bëre gën maa diis te liis sama may jàpp di ma daan nu ko neexee. di la fooyee di ma foowee di ma daan nu ko neexee nees de ëppul pokola ëpp ko gënu kaa diis dàqu kaa bëre te da ngay jàpp di ka daan nu mu neexee man suma jàppee nu ma neexee lay bëreeg man waaw moom nga xaw a. est nangu est-ce nangu na. nangu na pour ngeen teg ko lu metti non macha allah moom wax dëgg yàlla moom bu mënatul sax boo nee ko mën nga bu mën boo nee ko mën nga danaa la waaw xanaa mu dem ba tëdd mënatul dara mais bu mënatul di am force rek pour taxaw boo ne ko demal day dem waaw kon kooku xel dal na ci moom bu baax waaw di ko ñaanal tamit xam nga combat bi mu jëm nii di ñaanal yàlla yàlla nañu yàlla may ndam suturaal ñu may ñu ndam ndax dañ nañ ci ay coono yu méttee méttee métti métti te si kàttanu yàlla bu dee coono rek mooy fay yàlla dinañu may ndam quoi. nees deux. <laughs> sëñ Fallou bëgg waaye. ci loo ne. sant yàlla rek. mais affaire yi métti na de. waaw métti na trop wax dëgg fa yàlla. liggéey ku mel ne Liss Ndiago di ko jàppale ci préparation combat bi diggante moom Pokola métti na wala méttiwul nangu na moom est dina ko nangu. waaw moom moom nangu na li la téegër wax rek wax dëgg fa yàlla moom moom lu mu sonn sonn soo ko nee aywa dana la aywa làmb ji moom moo ko gën a bëgg supporters yi sax barki alxuraanu karim moo ko gën a bëgg supporters yi fop te bu dee coono rek mooy fay day daan bu soobee yàlla waaw parce que Pokola moom dafa maanaam nawloowul sa waay quoi mais moom bu tëddee si ruqam war na xam ne liis mun na ko daan. nga jàpp ne nanguloowul liis. non nawloo ko joxu ko cër pour moom benn xale bu ndaw lay bëri sa doom sax boo koy dóor léegi da ngay sonn waxuma laa xale buy entraînement tegu ci ay loxo dégg ndigal déggal ay magam fi mu ne nii yàlla rek a des mais li mu war a def yëpp def na ko waaw ñun daal waa jàmm gën la ñuy waxal ak li ko wër na ñëpp waaj sangu ba set ñëw taxaw dem esaat jàpp bërë bi defal ko ñibbisi kese loolu rek fi des mais instant bi li mu war a liggéey yëpp liggéey na ko. ku préparé combat 4 mois 5 mois yaakaar na ne moom boo parewul dootoo pare waaw kon fi mu ne nii moom gaan bës ba rek la ñuy xaar autorités yi génn jàppale ko ay magam génn jàppale ko loolu kese la. jërëjëf kon loolu dinaa ko dinaa ci woo Alamar Alamar xam naa ne yaakaar naa ne dina ñëw jàppale Liss Ndiago parce que xam naa ne Liss Ndiago booyam la Alamar dina ñëw parce que kooku wax dëgg yàlla nit ku baax la nit social la dina ñëw dina ñëw jàpp ci euh, même góor a bàyyi ma sey et cetera ñeneen ak ñeneen dina ñëw jàpp ci quoi dina ñëw jàpp ci mais Liss Ndiago bi nga déggee kàddu yi nga xamante ni ñi la seq di liggéey ak yow lan nga la def. waaw suñuy mag lañ ko waaw. waaw kàddu mag ak rakk la rek waaw mag lañ. wóor na alxuraan maanaam bëri may xoolee gabaar rek waaw bëri laa ñu xoolee alxuraan karim yéen ak bu rafet la parce que diggante Tigre ak Kimi ànd bu yàgg la quoi parce que dafa rafet waaw noonu la demee billaay démb te tamit suñuy mag lañ tamit yéen ñu tamit barki alxuraan ñun suñuy ndam sax moo moo leen gënal seen ndam ñoom mais Liss Ndiago est xam nga ne am nga bis bu bis boo xamante ni yow ki ngay adversaire bi ngay dajanteel du bis booy foowee. non man bis bi waroo ko foowee. war na yàlla mosuma foowee làmb. waaw ñoom ñii sax duñ ma si seetaan quoi barki alxuraan mosuma foowee làmb. wallaahi rawatina bis bii maanaam doo wax ma la sax bisu liis waa jàmm gën la waaw samay supporter man ñoo ma gën a bëgg bis bi voilà kon neexul bis boo xam ne dama si war a ñàkk fayda wala leneen ak leneen. waaw te la cinq lañ xam maanaam waaw du fii waa du fii du lam mais nu war a ñëwee la cinq. ci ab biir arène nationale liis nan nga war a ñëwee la cinq. waaw nu ma war a ñëwee mooy ànd samay mbokk rek ànd samay mbokk ànd samay supporter waaw di woo ñëpp képp kuy bëgg liis Ndiakho 100 pour cent jàmm gën mi. Pokola day xeex de. géej waaw noonu la di woo ñëpp bàyyi ma kenn. ku liis Pokola dafa mën a xeex de. waaw bëre la ñu wax waa. liis Pokola mën a dafa mën a dóor de. moom bu tooñee day xeex bu tooñee lay xeex. moom dafa bëgg a xeex de. laamu ji bu neexee. ba bëggee na xeex bu ko neexul day xeex. nga ne. bu ko neexee day xeex bu ko neexul day xeex. ah liis. Mhm. woo nga naat suñ guuxum soow de. waaw kon nañ ko naan furuj furuj dina bari de. waaw sëñ Fallou di woo ñëpp si làmb ji. wooteel di woowaat gabaar bu baax suñu mag. waaw amaan tamit ñun bu ñu duggee si làmb sax ginnaaw yàlla moom la quoi. waaw moom di ko nuyu. amaana tamit. waaw daa sëkk Liss balaa ngaa wootee may ma may ma may ma may may ma tuuti dinaa dinaa ñëw dinaa ñëw ci yow loolu may ma tuuti ma jël Amet Amet maa ngi lay nuyu. naas bilaay maa maa lay fay tolluwaay combat bi fan la leen toll ak coow li bari na. ci làmb ji diggante Pokola liis coow li bari na. waaw làmb ji moom mooy lool comme yeneen làmb yi la mais di wax xam nga naka ñëpp jàppale ak kii nii booy la donte moom xam nga rus na def sax yu bëri rus na wax yenn yi di di xam rek dëkk bi moom kenn mënu wax lépp mais naka gaa jàppale te yàlla tax bu si kenn xool leen doomu dëkk bi la jox na ñëpp cër naka gaa yi jàppale làmb ji làmb jàmm gën la Siteu ñu ngi koy woo si làmb ji faama jabaru Siteu ñu koy woo mu jàpp si bee bu baax si kaar yi laa mu ji lu gëj am lañ bëgg gaa def ay kaar ñëpp boo yëpp dem war na alxuraan naka gaa yi jàppale bu baax. Mm-hmm. jërëjëf euh, Liss sànq da nga doon ñëw doon wax ci ku baax ma dagg la. waaw mooy suñu mag gabaar quoi. gabaar waaw daa sonn suñu carrière ñun. wóor alxuraan man ñu ngi bay tax bëre bay tax ngem di bëre waaw ginnaaw yàlla moom la quoi. voilà parce que tamit mu ñoo wax lépp quoi. Mhm. waaw mais tamit suñu ñun maanaam jaayante na si bu baax a baax. Mhm. waaw di woo dam Dame Ndiaye ah borom Poste Thiaroye. Dame Ndiaye ngi lay woo di la wax ne dimanche laay def signature contrat bi. Dame Pièce waaw Dame Pièce de Dame borom Pièce de taille. dam Dieng waaw maa ngi la woo bu baax Dame borom Pièce de taille borom chips borom Poste di la wax ne gaan sama signature bi samedi bii di ñëw la gaan ah. booy ay kaar la ñu bëgg combat bi tamit ay kaar rek laal si sas. waaw mm. noonu la di woo Seba Ndiaye suñu mag. Mm. Seyba Seyba Ndiaye waaw day sonn si ñun wër na alxuraanu karim avant tamit ñu ñu biir ba ñu toll nii si la bokk waaw suñu mag la suñu lépp la barke alxuraan di la woo si combat bi yow ñoom Ahmed ak waa garage bi yëpp waaw jaaykatu pees yëpp ak Thier borom défoncé Thierno Gueye di woo ñëpp di woo bool bool yëpp waaw di woo tamit képp kuy bëggee Liss Ndiago waaw di woo autorité jàmm di woo tamit Coumba Dieng borom Angleterre di woo Maodo di woo autorité waaw monsieur le maire Diamaguène Aliou Badara Bey waaw noonu la demee lay woo si combat yi bu bu Sicap Mbao député maire bu Sicap sa xarit la waaw Pape Gueye kooku suñu papa ñun say doom la ñu ngi lay woo bu baax si combat bi tamit xamul la tàng ñàng yëpp ak mafia Diamaguène bi yëpp waaw poobar gi ñu ngi leen di woo bu baax baax di woo tamit mafia Roubaix bi di woo tamit mafia 505 bi di woo dafa am mafia euh, poobar bi waaw poobar gi waa fee la tëli jàll quoi boo yëpp maa leen di woo di woo jàmbaar yëpp képp kuy bëgg Liss Ndiago ku lim rek da ngay juum waaw di leen wax li ma leen doon wax rek waaw amul xalaat amul dara jàpp rek kon nu mu daan demee waaw liggéey naa ko te maa ngi ak na alxuraan te moo ma koy jël waaw di woo Siteu bu baax si combat bi. Mhm. waaw suñu mag suñu lépp nga waaw du loo xam ne toog fii la di ko wax quoi waaw di woo ala sa jabar bu baax a baax a baax faama man liis maa lay woo si combat bi la première fois ma woo sama combat. maa lay woo pour nga jàpp. faama faama faama men. waaw faama jàpp kooku nitu social la. waaw noonu la demee moo tax maa ngi koy eh, kooku day dox social. di la wax ñun ay doomu jaam gën lañ amuñu lu dul jaamu gën te combat bi combat jaamu gën la saa mu bësi. combat bi combat jaamu gën la maa ngi lay woo bu baax a baax a baax combat bi combat jaamu gën la di woo Mame Boye Diao bu baax waaw di woo tamit sama pësi sa jabar raw maa ngi woo bu baax si combat bi di woo képp kuy jàppale Liss Ndiago ana Seck waaw nga de waaw wéen nañ tamit waaw mais sëñ Fallou quoi yéene bee ngi fi xol bee ngi fi waaw di ko ñaanal jàmm ak caaru fora ñëpp mhm. waaw nekk foofu yëpp bàyyi ma kenn waaw tamit di ñaanal ñëpp jàmm quoi di woo tamit képp kuy jàppale Liss Ndiago borom jàmm ga ngi lay woo bu baax a baax a baax waaw di woo ñoom Abou Ndiassé tarki kenn ku lim da ngay juum waaw ay maa ngi leen ñaanal jàmm ay avancé Babacar Cissé di woo Maama Lamine baax si combat bi di woo Coly ñëpp waaw di ñaanal ku si yàlla mooy ko ndam. yee noonu la demee tamit di woo tamit àdduna di woo kilifa diine kilifa aaday waaw dina ñaan tamit si siyaar bi ñu jugee nii nii lépp luñ fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu di sàq waale si ñoom ñaan ñoom ñëpp waaw ñu ñaanal ñu la yàlla may ñu ndam waaw di nuyu àdduna bàyyi ma kenn waaw nuyu diaspora bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. mbokk Ndiago Moro Moro maa ngi lay waat si waaw Moro maa ngi lay waat si combat bi baax baax di woo tamit Kumba. Kumba Dieng maa ngi lay woo di woo bébé Jama waaw di woo waa Guinée sama mbokku njaago yi ma ruuma njaxu tout waaw aci nji lis njaago ma leen ci ba yetu nji waaw surtout waaw samay mbokku boloka si maa ngi woo ñëpp baa mu kenn waaw waaw di ñaanal ñëpp di ñaanal sama mag binet tamit waaw yàlla defal ko jàmm bu baax di ñaanal suñu yaay bi ñu fi desee muy aay yàlla gudd ñu ngi si jàmm bu baax ku si mel ñoom Aimé waaw ak ak waa Gàll yëpp maire bi ak ñëpp waaw ma kenn maa ngi ñaanal ñëpp waaw di ñëpp si combat bi di la wane gaan waa Pikine nee nañ maanaam 13h ñu tëj stade bi man 10h laa woo nga ne 10h nañ fekk ñëpp sama buntu gaal la ñu. waajal nga tëj stade bi waaw ñëpp. waaw laa mujj lii lañ ciy teg. jërëjëf lamb ji nee na lii la si teg loolu dina leer la cinq di gërëmaat euh, Alburax Baye Ndiaye di la gërëm bu baax a baax di nuyu sama ak Aziz Ala Ndiaye leen nuyu baax a baax di leen ñaanal sunu borom dafa leen ci lamb ji ngeen jëm mbokk yi di gërëmaat réew mi di gërëmaat àdduna di gërëmaat sumay xarit. yi nga xam si ni ñoom ñooy toog di ma seetaan maa ngi leen nuyu baax baax laay bu deef yow su ma doomu suma su seex nga maa ngi lay nuyu baax baax di la ñaanal suñu borom defal la jàmm Babacar su ma chauffeur maa ngi lay kontaane laay naxataa taalibi Serigne Bamba bi di la nuyu les grands cadres di la ñaana suñu borom defal la jàmm